wajal saqirana yuwaqirul kabir wajal kabirana yuinu li saqir wajal qulubana ala tawadudi bila tanasun wala taasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaqulin wala tanaafuri atta nasiru muslimina qaasiin wa muminina muxlisina saalin waxfir lana waafina biaafiya تكون في الدار خير عافية وامئ وكفلا المسلمة والنجي كل مسلم وملما وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وقدر يوم الخيام بجاه خير من سوى الأمراض ووعب المرقوب والأغراض محمد طبيبنا الأمام المبري الأمراض والأسقام وسلم عليه ثم سلما وآله مع أصحاب الكرماء ما أبلى المسغول بالدعاء ووفي المريل بالاستسفاء وللناس من أيضا سار له سوار فيدا يا من يروم دفع كل داء فلا تواري مطلب سواي وتمالي في المساء وسباب وارثا سنتنا وفراح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما صفى بإن ربنا وجاء المصفى صلى عليه ربنا كما صفى بإن ربنا وجاء المصفى صلى عليه ربنا كما صفى asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit yi mbokki talibe yi rawatina suñu mbokki internet yi nga xam ne yéenay topp seen chaîne bi di Khidma 28 TV ñu ngi fii nag kër Baye Hamsatou Sow doon ko siyaar si nag waaye daje fekk tawféexi sëriñ bi ndax day mel ne fekk nañ fi leeram muy sëñ baaram Cheikh Abdoul Ahad moom xaadimu rasul waaye nag ki war a ubbi kàddu yi ci ndigalu sëñ Amsatu mooy sëñ Fàllu si moom it ñu fekk fi muy doomi soxna di ko baax fekk fi ay bokki boppam waa mbusoo bi ak Mbakke ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci bisub sëñ Mbak sëñ Mor Jaara bi muy bis bu tedd di bisub sàkku ngërëm di bisub sàkku barke yàlla nañ ci dajeek moom ci daraje sëñ Tuubaa da yàlla yàggal fi Cheikh Mouhamadul Muntaxa te wéral ko bismillah sëñ Fàllu أعوذ بالله السميع العليم من إبليس الشيطان bokki jullit yi bokki taalibe yi ku gis jataay bi xelam dana daj kilifa gu tedd gu màgg muy maam moor sëriñ maam moor mbàkke borom saam di Mouhamed Mbàkke eh, ibnu soxna maam Hawa buso mu bokk ak Cheikh Ahmadou Bamba lépp ñu ñëw fi nag ci ak it di fi jël kàddu ci ni ko ngeen xamee ni ko ñëpp xamee muy laa yasbiquunahu bil xaw wa hum bi amrihi yaamaluun muy yoonu murit moom mi ngi tëdd foofu duñ jiitu sëriñ bi ci dara waaye lum ñu digal duñ ci fas yéenee desal dara loolu kon mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ bëgg a yëkkati ci kaw ndigalal sëriñ Mouhamadou Lamine Baara moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moom xaadim rasul jataay bii nag dafay jataay boo xam ne yàlla dafa def muy li ñuy wax lare ñaar waaye ëpp na ñaar ndax yàlla dafa def tey jii ñuy dundal ak fàttaliku bisub sëriñ Mamor Jaara borom saam euh, sëriñ bi tamit yàlla def mu bokk ci borom saam bokk ci Cheikh Ahmadou Bamba di ñëwal sëriñ Xamsat Saam mi nga xam ne sëriñ bi may wax sànq ma naa jotali diggante bi nga xam ne moo dox digganteem ak sëriñ Hamsat Saw mii ñu bokk liñ bokk lépp mu nekk xaritam nekk wëlëreem waaye nekk it ak ak kilifaam ci wàllu euh, ni ko ñëpp xamee di mbokkam di wëlëreem di léppam mu ànd ak délégation boo xam ne bii nag at mu jot ci ndimbala sum borom fii lay ñëw euh, dund ko ak sëriñ Mouhamed sëriñ Hamzata Saaw waaye ci biir loolu nag sëriñ bi di ci sant mboolem mbokki xur wi yëpp ndax tournée bi tournée bii mi ngi ko tàmbali woon gaaw bari ñu jàll jëmale ko woon ci bokki mboolem xur wi yëpp kenn ku nekk taxaw ci taxawaay bi ci gën a rafet te at mu jot ñuy gën di takku di gën di am engagement ngir l'islam ak Serigne Touba. loolu nag mooy dox ba tey jii nag yàlla dogal ngeen am tawfiixi fekke fi jataay bii seriñ bi nag mi ngi fi mi ngi fi ñëw muy sëriñ Mouhamadou Lamine Bara ànd ak délégation bu bari waaye fekk fii ay bokkam yu bari muy manasindia tudd si Cheikh Gaawaan mii ak sëriñ mood Adaka waaye mi ngi ànd ak sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Jaxate mi ngi ànd ak Cheikh Mouhamadou Fadil moom sëriñ Xaasa si waaye mi ngi ànd ak Mouhamadou Fadil si mu sëriñ Modou Xari si mi ngi ànd ak waaye sëriñ sëriñ Fall mi ngi ànd ak sëriñ sëriñ Xaarim Guèye mi ngi ànd ak euh, sëriñ Cheikh Guèye mi ngi ànd ak sëriñ Mouhamadou Lamine Saw di délégation boo xam ne bii euh, li la liggéeyal sëriñ bi lañ fi lañ koy def bi ñëwee mu fekk fi ko xam ne léppam la mooy sëriñ Abdoul Ahad euh, Mbacké Ngaabu ak it euh, sëriñ Mamor Bousso ak mu ànd fekk ak délégation yi nga xam ne ñëw nañ fi ba dem ak waa xuru yëpp ak waa caabeen yëpp loolu kon mooy jataay bii tey jii ñu am tawféexi nag di si fàttaliku borom sam borom saam nag mook si Ahmadou Bamba ñoo bokk lépp amoon nañ ab jigéen ñu di ko wax soxna Faati Mbàkke moom yàlla def na jamono bi ñuy nekk euh, Poroxaan ci la ci la demee woon ci lañ ko ay ay jëlkat jëloon amoon na beneen rakk bu ñuy wax euh, sëriñ euh, kii maam Habibulaahi Mbàkke ñoom ñëpp état bu xuru Mbàkke ci lañ feeñee woon jamono ku nekk xam ne nag borom saam mi ngi fi ñëw 1850 ci ñi ko ñëpp ñëpp gën a xamee 1850 la fi ñëw 1853 Cheikh Ahmad Bamba ñëw fi 53 jooju nag bi fi Serigne Touba yu néew ci ci feeñu jamono ci lañ fi joge ñu dem Xuru Mbàkke lañ am état boobu lañ am Xuru Mbàkke juróom-ñeenti at wala lu ëpp tuuti nga xam ne foofu la Cheikh Ahmad Bamba yeggalee lee ba lim fi war a dox lépp mu dox ko kon diggante borom sam ak Cheikh Ahmad Bamba doy na si ñu ne ñoom ñaar ñoo bokk lépp loolu doy na sëkk ci tedd nga ak teraanga ba noppi yit ñu tuddee ko Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi it yàlla jagleel mu bokk ci ñi nga xam ne Serigne tubaab fi muy jaar ci wàllu jaar ba ba mën a jàng alxuraan jàng xam ci man caa jaar jàll ngir man ñu mën a wax ne nit ku ko bëgg a roy da nga da ngay jël Abdullahi ak xadim rasulihi xadim rasul ji kenn mënu ko caa roy waaye Abdullahi ji nag mooy Ahmadou Bamba mi nga xam ne moo daan dem ci jàkka ja di jàngi alxuraan ba mokkal ko dem jàngi xam-xam ba am xam-xam dem dem dem dem di di liggéey di jokk bokk gi di wéniru kooku mooy Abdoulaye Abdoulaye jooju nag moom ñun taalibe yi foofu lañ mën a roy xadim rasulillahi ji nag moom mooy xaabar maqaami xan siwaa baaxil xadim wa inna ni abdun xadimun laa yërim loolu suñu yoon kenn nekku ci moom waaye nag ah, war a war a toll ci war a jàngi dem jàngi alxuraan ba mokkal mën na ko roy ci Ahmadu Bamba toll ci war a jàngi xam dem jàngi xam-xam ba ne ar mënees na ko royee ci Ahmadu Bamba topp say waajur ni nga ko war a toppee ba say ba jeex ca takk mënees na ko royee ci Ahmadu Bamba te loolu lépp moom maa ngi borom saam ñoo ko ànd waaye dafa defal borom saam it tawfiix ju toll ni ñi Serigne tubaa jaar ci jàng xam mam Mamor Jaara da caa jaar Serigne Serigne Mamor Jaara bokk naa si bam Bamba ñaari wayjur waaye bokk na ci yi biographe bu ñuy lim ne Serigne Touba fi mu jaar ngir jàng xam-xam Mamor Jaara borom saam dafa jàngal Serigne tubaa xam-xam loolu kon dafa bokk ci liñ mu li si gën a yéeme waat nag mooy mu jëkk koo feeñ ba noppi jàngal ko xam-xam ba noppi mën a jaayante mën a jaay lépp topp ci kawam daal daal jaayanteeg moom loolu mooy tedd ngay jikko ji nga xam ne ku bokk si yoonu mbir rek suñu maam borom saam roy roy roy teef la ci yow mu nekkoon tamit kat gis nañu ne yoonu murit ñi si gën a bari suuf maam borom saam ci la bokk ndax boo dalee ci mbàkke bool gii fii lay jaar ba saam saamaan yi ngay gis muy mu jaar biir Touba ba baa ngay dem Mesra ba baa muy digoo jeeg da daaru muuti loolu yëpp suuf borom saam la ak ab kat la woon ab jaamukatu yàlla la woon maanaam mbokkum Serigne Touba la woon waaye taalibu Serigne la woon jullit xàqan la woon moomin la woon muslim la woon muhsin la woon alaa Ousmane Ka nee na ma daana fi ñëw fii di fi fekk maam borom saam waaye nee na foo ko fekk mbo laax suba gi laax lay def bu bari mbooloo mi togg mbooloo mi toog di jëfandikoo waaye moom jamono bu ne mi ngi mi ngi jàng alxuraan boo jàngee ba war a dugal eh, ci kàddoom ci biir waxtaan wa day fa baaraam bi teg ci fa mu toll daal di dugal ak kàddoom wéyalaat waxtaan wa ala Ousmane Ka loolu la ma wax mooy jëmm joo xam ne ji ne diggante la jaamu yàlla ak liggéey yàlla ak jëriñ bindeef yi ak ak topp si amul bamba kenn xamul dayo ba mu xam ne yàgg na ko ca kon nag ñu ngi gàttandi foofu kàddu yi ndax di yëgle daal la sëriñ Malick Ba si daan wax ne lu waay gàtt gàtt gàtt gàttum xel xam ne suñ bamba yor na dara kon suñ bamba daraam jooju na ko ca bëgg moo cay wut bëgg wut am bëgg wutul amul suñ bamba suñ mor xarit daan wax ne sëñ bamba mooy xamut xamut bëggut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 في كل سهر وفي ظفر حماني على ماهن ما الأبصر والسفر